juin bu fekkee jumuma ci euh, euh, euh, date bi nga xam ne joxe na ko. Mhm. Ah, donc procureur dañuy gis lu faral di am lu mel nii dafay autosaisir woote. Ah. ndax jotul ci bu mel nii ci ay milliards yu toll nii. parce que être le frère du président de la république ne veut pas dire que nag da nga nekk benn intouchable. waaw waaw man damaa gis un procureur bu autosaisiru pour ay stickers. gis à maanaam yoo xam ne ñoo gën a ñàkk solo. lu mel nii ñetti reetaan waaw ñu ñu auto-saisir benn. deuxièmement accu accusation yu mel nii pour man ah c'est-à-dire bu bu dee bu dee bu fekkee ne Bougane li mu wax dafa dafa dafa amul aujourd'hui yaakaar naa ne euh, gouvernement bi dina am posture bu ñu taxawee. Mhm. wala dinañ ko woo. te génne gu ñu communiqué comme le cas de Adjib Soumaré. voilà dinañ ko woo waxuma sax waxu woo de mais tey jii bu fekkee li mu wax du dëgg mais euh, y a rien de plus simple que nga génn nga ne ko li nga wax nii amul xaalis baa ngi fii. daal di wala li nga wax ci avec des preuves. xaalis bu am traçabilité. nga weddi li mu nekk xam na banque nu muy mm-hmm. duggee. waaw yow yow yen yenn transfert d' argent yu ndaw sax. waaw boo defee yenn transaction yi da ngay am preuve que lii dugg na lii génn na. c' ça aujourd'hui man tey su ma dégloo ni mu demee man damay man automatiquement a xalaat mooy je donne raison à Bougane parce que defe naa ay koy wax. mi ngi wax mi ngi waxaat te ba léegi kenn tontuwul kan moo sañ a yow ñii Ousmane Sonko lan lañ ko nar a euh, jugé waatee fan yii nii. diffamation jugé bu gën a jugé bu gën a ñàkk euh, solo di la kii di di ne. li ma wax ci dossier Mansour Faye mhm. pour kat. kii jiiñ sàcc. Mhm. te li mu wax dafa leer xam nga sax ay kàddu yooyu mën nga ne non ay rapport IGF IGE. Mhm. kii dafa wax lu leer. joxe ni ma dafa joxe dafa dafa tudd nit. joxe joxe voilà dafa wax boo wax xaalis bi. wax ñi financé xaalis bi. wax ci banque ba mu ne mais quand même nañu leeral. taxi ñu jël ñu jël appel dellusiwaat ci euh, plateau dañu bàyyi ko euh, fii dañuy lire ay message am. te tontu ko. alors interpellé na daal euh, ñi nga xam ne ñoo war a wax ñooñee nag dañu ci gaaw wax nu gën a ne parce que sénégalais yi bëgg nañu ko leen leeralal allo. Euh, déggante bi xaw na des parce que mm-hmm. dafa mel ne kooku euh, dafa am leneen lu muy wax allo <coughs> allo salaamaaleykum Ngoné maaleykum salaam sëñ bi noo def waaw ñu ngi sant yàlla baax maa ngi leen maa ngi leen ñëpp maa ngi lay fay noo tudd ak foo ñuy woowee waaw maa ngi lay woowee depuis France man la Baye Fall bi France Baye Fall Baye Fall Gningue depuis la France. Baye Fall Gningue nañ la dalal ak jàmm. waaw jërëjëf man daal dama ba amoon lu bëgg a leeral tuuti rek. ay ci ñu ngi lay déglu. waaw Ngoné. Mhm. yow doo doo chaque jour yaa ngi lu mën a am rek yaa mhm. man boo xool terrain man laa la xamee. dëgg la. nitu terrain laa. léegi man dama lay laaj woon. Hmm. est-ce que mos nga fekkee benn benn euh, meeting buñ buñ autorisé rek mu am coow. fekk nga ñu koy wax sànq foog naa loolu laa njëkk a ubbee. Hmm. gisaguñu ko de. allo yéen a may dégg. maa lay dégg. ma ne est-ce benn meeting wala buñ autorisé rek. Hmm. mu am débordement wala mu am coow wala mu am xeex. amagul. loolu bu amee nit ñi dañuy liggéey si jàmm. Mm-hmm. ñi ñi ñi def ñuy def ñi liggéey ñi liggéey ñi liggéey soo du am dara du am. Mm-hmm. mais dëkk bu ñu nee démocratie dëkk démocratie. Mm-hmm. opposition bi ootee mais dëkk boobu noonu population bi war nañu sa tiit. dëgg loolu loolu c'est pas normal dëkk bu tollu Sénégal parce que nañu wax dëgg rek ñun lu ñu Sénégal mais instant bii nii jàmm jàmm sax amuñu ko parce que li ñuy gis suñu réew neexul parce que genre affaire yi nii si dëkku gi réew réew ñàkk daan am mais bu ñu demee ba ñu ne xam ne ñu ngi suñu réew mais am lu ñuy mel mais ñun fu ñu nekk nii dañu fay ñoom xam nga li mar plusieurs jours mais Ngoné xoolal mos dee mais léegi lan moo tax léegi ñun ko mu doole rek il faut nga woon ko ne yow kii yaa ko ëpp doole ñun suñu suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi Sénégal li mu am amul fenn xanaa sax ba xoolu sax ba sax yow ñu nga jàkkaaroon mais nga mais nga xool si sax mais gis nga yàlla yàlla mooy mooy borom lépp yàlla bu la mayee ba nga fokk ne yow asamaan bu doon wàcc yow mu téye yaa ngi nax sa bopp yaa ngi sa état te lii te lii te lii xëy ñii baaxul gis nga nga ne man dama nekkoon Côte d'Ivoire uh-huh. Côte d'Ivoire bi ma sàkk ba gën bi ma mujjee fi lépp la ma fekk da nga daan ñëw si buntu kër. Mm. fekk ñu tëdd. Mm-hmm. da ngay xëy da ngay xëy suba ba ngoon di dégg loo xamante ne ngóoree kenn ñaan ko yàlla loolu yàlla ko am Sénégal. oui. te gis nga li may gis ñu commencé nii. Mm. Côte d'Ivoire loolu bu muy commencé nii la commencé woon. Mm-hmm. da ngay def doo def da ngay def doo def. Mm-hmm. boo boo bàyyi ma def ma forcé. ñoo ne boo forcé ma sa kaw mm-hmm. parce que ñoom ñooy pouvoir bi loolu nga la yàlla bu am Sénégal amiin waay donc lii nii leen mm. jéem moom dox jàmm mm-hmm. gis nga opposition bi opposition bi pardon opposition bi mm. bu ñu defee jàmm ak jàmm am mm-hmm. nguur gi ñoo ñoo war a xam ne jàmm ñoom ñoo ko yor bu ñu doxalee jaamu jamaa gis nga xale yi yàlla xam na ne xoolal fitna taxu leen jóg bëgg nit rek bëgg nit am fu mu toll ci yow rek nga yow xam nga yaa ngi ragal ñu faagaagal ko. am yaakaar ci ñoom ñu ne dafa fort. Sénégal Sénégal war na romb tey fi mu nekk nii Sénégal bi am na solo dañu añ. Mhm. ñun dañuy wax dëgg rek boo ko bëree boo ko bëree doo faju dañu wax la xale yi xam nga liggéey ñu dañuy xam xam xale bu ndaw nga xëy sa yaay xool lañ soxla mhm. nga koy xool mu lay loolu mën na ko faj mais loolu mhm. jël. xale yi nag ñoom bëgg dara lu dul avenir fa tey ndaw yi koo wax lu lay wax ñoo bëgg a da bëgg dañ bëgg a tey jàppale sama seen wax benn la muy loolu donc xale yooyu taal taxu leen a jóg yàq taxu leen a bëgg seen réew mu tax a man du ma guddal parce que fan laay waxee yàlla xam na ko jërëjëf euh, kontaan nañu la sant la bu baax gërëm la euh, ci euh, teewlu bi ñu daal di seetaan yi ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel gi. voilà doomu daara yi nga xam ne maa ngi leen di mm. wax sànq ñi ngi mm. amal na jàkkaarloog taskatu xibaar yi du mm-hmm. ñàkk ñu waxtaane mm-hmm. euh, ba su suba ginnaaw suba wala sax convocation ki nga mm-hmm. xam ne euh, moom mooy lu Ousmane Sonko digganteem ak euh, Mame Mbaye Niang ci wàllu diffamation boobu nga xam ne le 16 lañ nar a dem taxawi ndax yëf yi dañu ko dàqoon ci avocat Ousmane Sonko di maître Djigo ne nag na mi ngi doog a entrer en possession ci boobu le dossier ñu may ko mu gën ko càmbar ah, donc ñu daal di seetaan yi ñi nga xam ne ñoom ñooy